kii ñu denc léegi ñun du wéy jur ci ñun sunu mbokku taalibe la wóor na sëriñ Pape Malick bii sëriñ Abdou la mu leen ca wax ca jàkk ja wax na leen ko Cheikh Alxaaj Malick bii it la mu leen ca wax wax na leen ko ñun ñii li ñuy nekk nekk njaboot bu mu ci masa waxal ba noppi day tàllal loxo ni la ñaanal ma walla mu ni la yeesal ma ndax seen bàyyi moo ma jox salaatul fatiha waaw ma tax na tubarkàlla daf ma daan wax Moustapha ko la bayka mu ni ma cëru soxna astu duma wax mukk ni am naa ko waaye sañ naa taasu ci barkeem waaw wa tabaarakallahu soxna astu kan yàlla yàlla yokku leeram dafa am seede bu Serigne Cheikh defoon ci moom bi mu wujjee boroomam te moo di fa yaala faqiidin fi rida wa faqiidatin huma fi lula walmajdi yastabiqaani waaw waaw mu ne nag faqat naaka nisfan yaa xalifata malikin ونصفا فقدنا بعد يلتحقان آه. ومن خمنا كون ني دوغال سخنا سي تي بير بركه بوبو رك آه. فتبارك الله بوكا دفي نك آه، خاينا دي نيو واخني بتينا نخ ييني وايي موم مي دم بتكو